ورضي الله عن عبد الله وخديم رسوله الذي هو رجاؤنا وقدوتنا وغوصنا في هذه الدنيا وتلك الأخرى مولانا أحمد الخديم كان له بكرمه الباقي الخديم الذي قال حويت ما حواه السابقون وجاءني قوم مرافقون mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne ñooy topp seen chaîne YouTube Gaydel TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di del siwaat di sant suñu borom tabaraka wa taala rabbul izzati jalla jalaaluhu julli ci yonentam bu tedd bi nga xam ni mooy buntu yërmandeem ci kaw suuf muy rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama di delloo njukkal bu ànd cant sunu yaakaar sunu wasila sunu cër ci biir lislaam muy Cheikh Ahmadou Bamba Maulana Khadimu Rasoul di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moo toogee ab jataayam di sëriñ Touba ci jamono sunu borom fi xaw fanam mu ànd ak wér ba lépp lu mu yéene taalibe yéene ko jullit ñi mu def ko ci coobareem noonu lañ koy ñaanalit njabootu Serigne Touba gi koy jàppale ci liggéey bi ak njabootu suyoox waaye di jaajëfal Cheikh ibrahim Fall Babul muridin gannaaw loolu ñu ngi nuyu mboolem kilifa diine yi ak ay matul islaam yi fu mu mën di nekk rek fii masharixil ardi wa magharibiha di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Xaadim Lo Gaydel moom sëñ Moustapha Lo moom sëñ Mbour sa del siwaat nag ci seen émission bopp jotaayu Murid Sadiq nga seen mbokk Abdoulaye Thiam moo leen koy defal mu jëm ci dunduk serigne bi ak ñi mu defaroon ak taalifi serigne bi tey nag ñu tànn kenn ci ñi nga xam ni serigne touba yi ci lañu mu ko may daraja di borom cër di borom keman, di borom xar baax muy serigne salihu fall rakki cheikh ibrahima fall serigne salihu fall moom soxna seyna bu njaay moom cheikh ahmadou fall tey moom la ñu war fas yéene waxtaane kon tey bu ñu bëggoon laaj defal taarif Serigne Saliou Fall wax ni kan mooy Serigne Saliou Fall kon dañuy wax rek gàttal Serigne Saliou Fall mooy doomi Cheikh Ahmadou Roqay Fall ak soxna Seyna bu Njaay nga xam ni mu ngi bokk ci njëre wàqe nga xam ni mook Cheikh Ibra Fall ñoo bokk wajuru góor ak wu jigéen muy rakki Cheikh Ibra ñoom nag amoon nañ rakk jigéen amoon nañu wokk mu jigéen moo xam ni nday la ñu bokk ko soxna Astu Jóob bintu soxna Seyna bu Njaay waaye bintu si Abdou Xaadir Jóob ndax si Abdou Xaadir Jóob mii tamit joxoon nañ ko soxna Seyna bu Njaay mu dëkkoon dëkk bu ñuy wax Njóobeen moo am ca soxna Astu Jóob soxna Astu Jóob moomu sax moom lañ joxoon sëñ Daaru Asan Njaay sëñ Saali Fall nag mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Touré Atumaan ci njare wàqe département Kébémer di région Louga maanaam Njàmbur ci 1859 Sëñ Saaliw kon mi ngi gane àddina mi 1852 59 miladiya ci gàttal rek bi mu tollee nag ci sàkku xam-xam mu ngi tàmbali am njàngam ci nijaayam ñu koy wax maam faat ma Njaay wala maam Njaay faat ma jaam ji wax maam Njaay moo ko dalal alquran mu jàng fa tuuti ginnaaw fa mu ginaaw ba la fa jóge dem tey ba xaay dëkk bu ñu tey ba xaay moom it fa la jànge ba alxuraanam yegg mu jóge fa dem dëkk bu ñu wax tey ba mbay foofu it fa la doon jànge xam-xam ginnaaw ba mu laxas dem njàmbur kër sëñ Mor Abdoulaye Sey foofu mu jàng fa fan yu bari ci xam-xam ginnaaw ba mu jóge fa dem ba Ndakar ba mu jógee Taïba Taïba Ndakar nag ci la dem euh, kër sëñ mut fa mbomba Touré daaray sëñ mut fa mbomba Touré foofee mooy daal ji mujj jàng te mooy te mooy daara ju ñuy wax Taïba Sayar bi mu jógee tey ba seer nag boobu fekk na mu géeju ci wàllu xam-xam fànnu xam-xam yëpp nag moom sëñ Saliou Fall waaye nag mu nekkoon góor yàlla gu mag boo xam ni dafa ganeewaale àddina cërub yàlla bu mag a mag moom sëñ Saliou Fall moo tax bi mu jógee ci tey bay ci la daal dellusiwaat ñëw ci ndijaayam maam Ndiaye Fatma jamono boobu tamit ci la woy juróom bu góor Cheikh Cheikh Ahmadou Rokhaya Fall ci la wàcc liggéey mu sax foofee ci nijaayam ba kero bi nga xamante ni yoonu murit sosu na ci loxoy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Rasul ci atum 1883 mu ànd ak magam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine jaayanteeg sëñ Touba waaye nag Cheikh Ibrahima ko jëkk a dem ndax lu yéeme yéeme moo xew ci diggante Serigne Saliou Fall ak magam jii di Cheikh Ibra Fall ndax dañoo nekk ci àll bi wax nañ ne am na bis boo xam ne dañoo bokk nekk ci àll bi ba yàgg sëriñ Saliou Fall daal di woo Cheikh Ibra turuñ ko daan wooye bu njëkk muy yëpp sa xànc yëpp sa xànc mu ne ko Fall mu ne ko ñaxu salguuf gii dey mi ngi may xamal ne ki la moom moom jaam ñi woote na foofee wax nañu fa la Cheikh Rafal teggee dem wëri sëñ Touba ba ne mu ko fekkee mbakk Kajoor ak li ci xew lépp ginnaaw ba nag ci la maam Saaliw Faal soog a ñëw ci sëñ tubaa jébbal ko boppam muy tolloog 1888 dëppoog at mi nga xam ni Cheikh Ibra Faal mbokkam ma ci lay jot ngërëmam ci sëñ Touba kon Cheikh Ibra bi mu ñëwee ci sëñ Touba ba am ñetti at xam ngeen ni jële ko sëñ Touba gërëm. ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu di bisub talaata waaw nga xam ne bi mu koy bi mu koy nettali moom Cheikh Ibrahima dafa kam ko doon wax daf ne ko bis bi topp ci altine bis boobu topp ci altine nga xam ne koo ko def mu mere la nu mu tudd mënu ko talaata mënu ko bis boobu ci laa sa sama ngërëm muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ci 1888 ci la Serigne Saliou Fall ñëw ci sëñ Touba jébbalu ci moom booba. wax nañu sëñ Saliou booba mu ngi amoon fanweeri at la amoon ndax moom it sëñ Saliou Fall xam ngeen ni at moom yi ci la sëñ Touba sanc Touba muy 1888 bi sëñ Touba ñëw ci sanc bi xam ngeen ni bi muy ñëw Touba dafa defoon ñeenti daara waaye jenn daara ji xam ngeen ni Cheikh Ibrahima saar la ko joxoon Cheikh Ibrahima saar moomu nag moom la sëñ Touba boole woon ak sëñ Saliou Fall. ginnaaw boo ñu nekk fa ñetti at sëñ tubaa gërëm ko waaye boolewaat ko Cheikh saar Sarr Cheikh Ibrahima Sarr di ñëw Njaañ mi ngi àndoon ak Serigne saalu Fall nga xam ne ci gàttal rek bi sëñ Touba di dem ci géej gi booba Serigne Saliou Fall mi ngi ci loxoy Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Jazaaka. nekk nekk fa di di di di liggéeyam ba ni Serigne ñibbisee ci géej gi bi sëñ bi ñibbisee ci géej gi nag ci la ko woolu gërëm ko. gën leneen ngërëm daal koy tofal mbooloo waaw mu door a jóge foofu nag fekki magam jii di Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin dëkk bii di cees moo tax sëñ Saliou amoon na fii kër fii ci Thiès bokk na ci ñi ko Serigne Touba boole loon xam naa ñun am ñun ci lim rek bokk na ci sëñ Abdul Xaadir Fall bokk na ci sëriñ Baara Fall ak sëriñ Tayba Ñang ak sëñ Modou Ndaak Fall sëñ Abdoulaye Guèye ak sëriñ Waar Ñang sëñ Saliou Lo ak sëriñ Mbacké ak sëñ Codé Fall ak sëñ Abdou Diop ak ku ñuy wax sëñ Kumba sëñ Gumba Sarr sëñ ak sëñ Abdoulaye Cissé ak sëñ Abdoulaye ak sëñ Modou Anta Ndiaye ak sëñ Mor Mor Sarr bari nañ dañuy lim ñëpp waaye ñii ñëpp moom la leen sëñ Tuubaa boole loon mu seexal leen ñoom ñoom ñëpp tamit ñoom sëñ Saali sëñ Saali Fall mboolem ñi ma nii ak ñi ci des nga xam lim ma leen seen i tur gi fu waaye day gudd ñoom ñëpp moo leen tarbiya defar leen maral leen ak seen borom sëñ Saali nag nekkoon nit ku yéeme nekkoon ku am ak ubbeeku ci wàll ci fànn yëpp nag ndax ku teeloon am relation la ak autorité coloniale si nga xam ni ñoo nekkoon ndar ci jamono yooyu ak gouverneur yi. nga xam ne gouverneur yi daanañ ko seet si lu bari ci dëkkam bii di kon ci gàttal rek mën nañu laa wax ni sëñ Saliou Fall ku yéeme la woon koo xam ni sunu borom tabaaraka taala ku mu dimbali la defal ko ay mbir yu yéeme kon relation boobu mu amon ak euh, ñoo malakohai ma la ko waxee buuri àddina yooyu jural na lu rëy rëy rëy mu nekkoon tamit koo ni la ko ku ubbeeku la ci fànn yëpp yépp moom Serigne Saliou Fall fànn yépp nag da ci ba yéeme lool mal ko waxee léegi mu nekkoon ku teel a xam àddina teel a am kër lool ci Dakar ba ndakaaru di Dakaru nga xam ne amoon na kër ndaan di faalit amoon na fa sanc sancoon nañ fi ñuy wax ndëy nga xam ne day sama dëkku maam la sancoon na fa ak puut kër gi mu amoon dakaar nag wax nañ ni dafa amoon ay taalibe yu dëkkoon Tëngéej di ay lébu di ay taalibe boppam ñoo ko joxoon addiya muy fii palais de la république bu nekk tey nga xam ne jamono yooyu ñu ngi ko daan wax làmbinaas mooy këru ambulance rek foofu sëñ Saliou Fall moo ko moomoon ginnaaw ba nag la ko jox magam jii di Cheikh Ibra Fall addiya Cheikh Ibra Fall jox ko sëñ Touba addiya xam nga Cheikh moom lu masa am rek sëñ Touba ko moom sëriñ bi moo ko mayoon rakam ji di maam Cheikh Anta ak sëriñ Balla Coro wax nañu maam Cheikh Anta daal di bàyyi wàllam ak sëñ Balla Coro sëñ Balla Coro moo ko jaay fonction publique loolu moo ci jotale nguurug Sénégal waaye kër googu ca cosaan sëriñ Saliou Fall moo ko moomoon. sanc na dëkk bu ñuy wax daarul imaan ak kër Ngaalang santoon nooto. ak daaru xëy faal ak garoom njëbi faal ak ndànd faal ak ndiiréen ak dëkk yu bëree bari dëkk bi mujj sanc nag mooy daarul xafuur moom la mujj sanc ku ñu wax sëñ Abdou Awa Njaay di mbokkam ci wàllu woy juróom bu jigéen moo nett li ne nee sëñ Saliou Fall bi mu demee ba jëmmi jamono mu bëgg barab bu yaatoo yaatu bu mu liggéeyal yàlla liggéeyal fa sëñ Touba man faa tarbiyaan ñi nga xam ñoom la ko yàlla booleel nga xam ne bokkul ak njaareem ndax njaareem amoon na fëkkër danañ danañ ci delsi mu bëgg itam dëkk boo xam ne daa nekk ci diggante Touba ak njaareem ndax booba jamono fekk na mi ngi njaareem moom Sëñ Saliou Fall fii ñu wax kër Cheikh ci wetu magam ji di mbokkam di Cheikh Ibrahima Fall ci wetu kër gu mag jamono yooyu ci la ñëw ci Sëñ Touba laaj ko ndigal nekkoo ko man kat damaa bëgg fi nga xam ni fa nga jullee woon ci bi ngay dem gànnaar ca dala damaa bëggoon nga jox ma ndigal ma sanc fa dama faa bëggoon a sanc sëñ Tuubaa jox ko ndigal bu ko joxee ndigal nag mu del siwaat ci magam jii di Cheikh Ibrahima Fall diisoo ci ak moom Cheikh Ibrahima Fall nangal ko ko joxaat ko ci ndigal loolu di ci 1919 lii ma la wax nii mu ngi nekkoon ci 1919 ci ginnaaw guerre 14 18 1914 ba 1918 nga xam ne guerre boobu bi mu jeexee ci at moomee di 1919 ci la ko gor mu gor ko ba mu yéwén mu sanc ko ci 1921 22 maanaam fin wu 20 21 di vingt 22 ci la sanc daarul xafoor nga xam ne wax nañu li indi daarul xafoor ci sax mooy mu ngi jóge ci sëriñ bi ak sëriñ Massamba ak sëriñ Dab Abdourahmane Lo moom dafa wëlante woon ak sëriñ Massamba wala wala gu sori ak sëriñ Abdourahmane Lo sëriñ Abdourahmane Lo nag ak sëriñ Massamba am bis ñu ñëw gana ci ko ci sanc bi boobu da koy doo rek amagul sax tur bi ñëwee ci sëñ Saliou Fall ci sanc bu yees bi sëñ Saliou ne leen man de yéen ñaar ñi bëggoon naa ci baaxu sëñ tubaa ngeen wutal ma tuur ci dëkk bii ma barkeeloo ko ci yéen ngeen sàkkal ma aw tur bu ñu yendoo ba ngoon bala ñuy wàññeeku nag ku nekk ci ñoom ñaar naan sa moroom yaa gën a yeey ci wutal ko aw tur sëñ Sàmba di wax loolu sëñ daam sëñ daam di ko wax loolu nee na ba yàgg rek euh, sëñ daam ni a ah, kon de xanaa xunaa at daaru xanaa def ci mooy daaru sëñ ma Sàmba teg ci alxafuur mooy kërug aj jéggale ji wax nañ ni bi mu yegg si sëñ Tuba moo ca dolli arrahim muy daarul xafuuri rahim kërug yàlla mi jéggale te yërëme loolu mooy indi daarul xafuur sëñ sëñ nag daana fekki sëñ Tuba gànnaar di ko yët ay liggéey di ko yët ay ay hadiya yii saa daana fa yebal ab taawam sëñ Modou Saliou Fall ak doomam sëñ Modou Anta Fall ñuy yóbbul sëñ Tuubaa ay addiya gànnaar bi sëñ Tuubaa jógee gànnaar ba ñëw ceen naka noonu daana fa dem daana fa yónnee ay addi yu bare bare njaareem it xam ngeen ni sëñ Saliou Fall waxoon naa la ko léegi sancoon na fa muy fii ñuy wax kër Cheikh Ibra Fall tey ci njaareem foofu moo ko moomoon ndax moo ko gor waaye xam ngeen ni Ibra Fall bi mu nekkee Thiès ba 1918 ci la ko sëñ Touba jox ndigal mu ñëw sanc si njaareem mu ñëw dëkk si njaareem sanc si fi bi mu ñëwee ci ndigalal sëñ bi mu sanc fi ñuy wax Màkka Loy Loy fa la njëkk a sanc ci ndigalal sëñ Touba waaye xam ngeen ni 1920 peste dafa amoon muy mbas peste bu metti mel ni lii am rek ci 1920 ba jàpp 21 bi ñu nekk nii loolu dafa amoon ci jamono yooyu nga xamante ni ci la sëñ Tuubaa nekkee njaareem bi loolu amee nag xam ngeen ni dogal ci dogalam ya feebaru peste boobu feeñ fa feeñ ci kër Cheikh Rafal dal ñu bari ci njabootu Cheikh Ibra gi ba wax nañu sax am na ci ñu bari ñu ñu wàññeeku woon ñu wàcc ab liggéey ba laalaale na sax Cheikh Fall ci jamono bis Cheikh Mandoumbe Mbàkke radiyallaahu anhu ñëw ziar si Cheikh Ibra Fall fii ci kër Cheikh ci njaareem euh, wala boog ci Màkka Loy Loy bi mu ñëwee ziar ci Màkka Loy Loy euh, bi mu ñëwee ba gis Cheikh Ibra Fall gis li xew ci kër gi ci la jóge foofa ci Cheikh Ibra dem ci sëñ Touba ziar ko ba noppi daal koy gaaral mbirum Cheikh Ibra Fall ne ko Mbàkke ah Cheikh Ibra Fall defee mu nekk métti na lool ci moom. dalaa waxut dara rek de waaye sanc ba de metti na lool moom laa ziyaar ji woon ci la ko sëñ jox ndigal moom Cheikh ra ngi mu taxaw foofee di makka loy loy te dem fekkee rakam jii di sëñ Saliou Fall ci foofu di kër Cheikh bi mu ñëwee bi mu ñëwee ci sëñ Saliou ci la sëriñ Saliou jël këram ak sancam yëpp jox ko Cheikh Ibra Fall daal di dem ca wàlla daal di fay sanc loolu moo indi kër Cheikh Ibra Fall ci njaareem loolu nag li ji ci mën a jànge mooy sëñ Saliou Fall magam jii di Cheikh Ibra Fall nekkoon sëriñam nekkoon jëwriñam nekkoon léppam ku ko déggaloon la ndax mosu koo të benn yoon mosa jaar fu ko neexul mosa jëf lu ndigalal Cheikh Ibra waaw waaye Cheikh Ibra Fall it toppul woon loolu rek ba sàggane cërib sëñ Saliou ndax Cheikh Ibra Fall mosta def lu mu diisoowul ak sëñ Saliou Fall ab sanc sax bala ko woon a def dina woo Serigne Saliou mu ñëw def li si xaar ji ba noppi mu doog a sanc kër ga noonu lañ meleen ñoom ñaar kenn ku nekk cër bi suñu borom def ci yow Sëñ Tuubaa def ko ci yow sa morom nangu lool na ko donte Cheikh Ibrahima moo doon ab sëriñam bi nga xamee ni nag Sëriñ Tuubaa joxe na ndigal lu jëkk ndigal li mu njëkk a joxe ci jumaay Tuubaa euh, nga xam ne li waral bés bii nga xam ne moom la ñuy màggalal sëñ Saliou Fall ci Daaru Xafour ci nif Chaban fukki fan ak juróom ci baraxlu li ko waral mooy bi nga xamee ni sëñ Touba ci na Touba euh, bal ci jaar jaar ci ba mu dem ci géej gi dem gànnaar ñëw ca yéen ba ñëw njaareem nekkee njaareem nag xam ngeen ni ci la joxe woon ndigalul jumaay Touba ba defoon lettre autorisation ba mu bindloo woon sëñ Mbàkke buso mu nekk loolu nekkoon ci 1925 waaw euh, booba la sëñ Touba njëkk wax ni daa bëgg ñu tabaxal ko jumaa ci Touba ba joxe sax lii bi mu ko bëggee maanaam barab bi mu bëgg ñu def ko fa dajale ñam war dajale di diisoo ko ñoom junj leen fa ko bëgg lépp balaa joon sax ñaar fukki fan ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett nga xam ne mag ñooñu jamono képp koo xam ni wax nañ ni ku jumaay njaareem rawoon ba jëfoo ci woon njëkkante nga ba fexe ba jëf ci fukk juróom-ñett yooyu sëñ Tuubaa doon laaj waaw booba nag nga xam ni ñaar fukk juróom-ñett lañ doon laaj ci murit bu nekk jamono yooyu nag ci la sëñ Tuubaa woolu sëriñ Saliou Fall ba mu ñëw mu ni ko fii ma sama boroom jox ndigal ne ma war naa am masjidun jaamiun ca Tuubaa yow jox naa la ndigal dee ma ko bégalal dee ma bégalal loolu maanaam dee ma ko màggalal sàkkal la ma bis boo ma koy màggalal ne ko saa buñ ci saa buñ ko dooree weer wu ne dee ma ko bégalal di ma ko màggalal loolu la sëñ Tuubaa waxoon sëñ Saaliw Fall nga gis yoonu murit ku nekk ak jagleem loolu mel num sëriñ Saaliw Fall moo ko am ci yoonu murit nga xam ni bi nga xamante ni tàmbali nañu liggéeyu jumaay Tuubaa ci 1931 la tàmbali weer wu ne moom sëñ Saaliw Fall mu mu tànn ci benn bis rend ci ay nag def ay bernde ñu fanaan faa tudd yàlla bu bët set ñu tasaaroo loolu weer wu ne da ko doon def mu di ko def ba mu am fukki at ak ñaar ndax xam ngeen ni sëñ Saliou mu ngi wàcc liggéey ci 1943 kon 1931 ba 1943 muy fukki at ak ñaar di 12 ans bi mu wàccee liggéey nag. ba ni sëriñ bi sëriñ Fallou toogee xalifa ba yeggale jumaa ji ci 1963 bu ubbi ko ba mu ko ubbee ba noppi nag ci la woolu njabootuk sëriñ Saliou Fall muy doom yi fi newoon ci jamono yooyu ni leen yéen de seen waajur wa sama waajur wa sama sëriñ sëñ Touba moo ko tànnaloon bis ci jumaa ji mu di ko def ci jumaa ji gannaaw nag jumaa ji yegg na te maam Thierno di rek sëñ sëñ bisam di nisfu Sha'ban xam ngeen ne nisfu Sha'ban tamit foofu bala ñuy jàll maam Thierno ñu fàttali ni njabootam gi bis bi mu wàcc liggéey moom lañ daan màggal waaye bi sëñ toogee liggéey toogee xalifa ci la wax ne bés boobu moom yeesalaat ab dëj rek la bés bi ko sëñ Touba gërëme woon joxoon ko ndigal muy bis mu gisee woon ak sëñ Touba ci bi mu jiwee ci géej gi ca Ndar dee leen màggal bis boobu kon loolu moo indi ni Sha'ban sëñ Fallou moo ko moo ko soppi jox leen ko naka noonu tamit. Euh, sëñ Touba loolu la wax njabootu sëñ Saliou Fall ne leen gannaaw sëñ Touba moo ko tànnaloon bis ci jumaa ji te jumaa ji yegg na te maam Cerno di rakki sëriñ bi waaw sëriñ Saliou di rakki Cheikh Ibra te sëriñ bi ak Cheikh Ibra seen lépp di lenn kon dee leen ko màggalal ni si Chaban lii moo tax ñuy màggal daarul xafur ni si Chaban bu ñuy jaaree nii jëm daarul mooti nisu Chaabaan ñiy jaar ne dem daadul xafuur ci nisu Chaabaan waaw kon loolu li mu tekk rek mooy sëñ Tuubaa léppam mboolem mbiram mu ne lenn képp la du ñaar fu mu man di ne lenn képp la du ñaar kon noonu la deme mu nekkoon nag ku yéeme moom sëñ Saliou Fall ndax bi mu sancee daarul xafuur da daa wax ni daarul xafuur gii dey fi laay jóge wuy ji sëriñ tubaa maanaam fi laay jóge wàcc liggéey wu ji sëñ Touba Touba mu am bis nag wax nañ doomam ju ñuy wax sëñ Modou Anta Fall mu ñëw fa doon ko siyaara si mu doonoon dem ku mu jubóol lool nag li ko waral nag sëñ Modou Modou Anta Fall moom dafa nekkoon borom xam-xam yàlla nekku nit ku sell ah, mu bis nag bi Modou Anta moom mu ñëwee ziar si way dellu sëñ Saliou Fall ne ko Modou Anta mun ko gaa yu baax yi dey am na ci koo xam ne juróom-ñaari weer moo ko dese fii ci àddina koo xam ni yoonu moytu war nañ koo xam découvrir ko ndax ñu mën a jariñu ci moom yaa nañ ko yàlla fayal te dolli ñoo fayal magam ju baax jooju Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon mbokk yi nga xam ñoo doon euh, suivre seen émission jotaay Mouride Sadikh foofu lañu ñuy ak yéen di leen dégg di nga ne daje nag ci yeneen i plateau yeneen i daje wa axir daawaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamu aleykum wa